xam naa wax bi du gudd parce que xam ngeen ne yi ngay xaar Saint-Louis naruñu woon dugg fii waaye suñu histoire ak UGB ñëpp xam nañ ko je peux même dire que tout commencé ici à l'UGB maa ngi essayé xàmme parce que tout changé ici je crois que village am war a nekk fële waaw C'était notre village. Mais apparemment, beaucoup de choses ont changé. Balamay dama Damaleni Dialé, Lignu Bok, Moy mooy euh, Domé, deuxième victime de la lutte inlassable des étudiants pour la démocratie, le droit, la vérité et les libertés. xam naa ni année yi weesu étudiants yi daj nañ lu ne métti na ay nit seen bakkan rot na ci am na ñu ci dàq ci université yi am na ñu ci seen jàng yàqu et pourtant ils avaient tout un potentiel et donc s'il y a des gens qui ont consenti énormément de sacrifices pour que la lutte que nous partageons tous mooy la lutte pour le changement définitif qualitatif et structurel que cette lutte-là aboutisse yéen bokk ngeen ci yéen étudiants yi moo tax nag moo tax nag il est impératif que lutte boobu ñu yeggali ko parce que lu dul lool rek on aura beaucoup perdu pour rien faire des sacrifices en soi ça pose pas de problème parce que cause bu noble boo mës gis am na ay nit yu sacrifier seen vie mais fi muy amee solo rek mooy ñu dem ba atteindre le résultat pour lequel les gens se sont battus et se sont sacrifiés et ce résultat là ça ne démarre pas ça ne finit pas avec le dimanche 24 ça démarre justement avec ce dimanche parce que le résultat c'est moins d'atteindre les leviers du pouvoir que la manière dont on va s'en servir pour transformer définitivement ce kon dimanche li war a xew ce n'est que le premier jalon mais c'est un jalon important parce que balaa nga naan naam ne fa ñun suñu xalaat nu mu rafet rafet suñu yéene ci yéen suñuy doom ak suñuy rakk nu mu yaatu yaatu bu ñu eggul fi ñuy jëlee décision yi on ne pourra jamais appliquer ces idées te benn yoon lay am par cinq ans parce que élection yi bëri na mais vous savez bien que l'élection la plus déterminante Dans un système présidentialiste, c'est l'élection du président de la République. te bu amee dimanche bi balaay balaa muy amaat 2029 la ñu jëm si on le mauvais choix ce encore cinq années de souffrance déjà cinq années yi passé gis ngeen li ñu dund est-ce que vous moo tax il est impératif bi li nga xam ne 1960 ba léegi ñu ngi koy raté ñu réussir ko dimanche bi te loolu nag mi ngi jar mi ngi jaar ci la responsabilité et le comportement de chacun d'entre nous li ci gën a gàtt mooy il faut avoir sa carte d'électeur loolu mooy li ci gën a gàtt deuxième bi mooy il faut aller voter ñun nag ay opposants lañ suñu doole bëriwul mais un mettra à disposition des étudiants ci suñu doole fi mu toll des moyens de transport pour ngeen mën a dem voter ji ñi ko mën a defal seen bopp nag parce que patriotisme la ñu woote ku ko mën a defal boppam bu mu xaar kenn parce que le choix que nous faisons va déterminer notre avenir et celui de nos enfants ku ko mënul tamit suñ la mënee jàppale dinañ ko def On n'attend rien en retour, mais c'est important que les gens puissent aller voter. Et aucune voix ne sera de trop. Donc, voter dit dafa am solo. Mais bu leen les ci voter, il faut sécuriser le vote. Et vous, étudiants, vous avez une composante parmi la jeunesse, xam ne li ñu ràññale mooy peut-être seen jàng egg na foo xam ne ñu bëri seen jàng yeggut foofu kon ba ngeen am un rôle déterminant dans la sécurisation du vote loolu nee naa c'est le premier jalon parce que ma conviction c'est que cette élection la on va la remporter ce dimanche dès le premier tour et sans contestation possible incha allah même su dee nag xam nañu pexe gars yi moo tax fi ma jaar it nee naa dimanche à partir de vingt heures bu ngeen dogoo ba pare na ñëpp génn dans tous les quartiers du Sénégal dans toute les villes du Sénégal que tout le monde pour célébrer la victoire éclatante de Bassirou Diomaye Faye parce que parce que xam nañ seen jikko ñoom vous vous rappelez en 2019 dañu def élection bi 22 heures seen premier ministre taxaw ne ñoom gagné nañu à 59 pour cent bi pa nag pour une fois dans l'histoire du pays c'est le pouvoir qui est en train de parler de deuxième tour mais nous opposition nous disons que cette élection se gagnera au premier tour kon loolu wane na ni ñoom xam nañ ni ñàkk nañu à part de ce moment nag je disais que ce sera le premier jalon le second jalon on aura besoin de toute la jeunesse sénégalaise et particulièrement des étudiants réew dañ koy tabax nous savons que les attentes seront très fortes mais réew dañ koy tabax brique après brique ça ne va pas tomber du ciel du premier coup mais nous avons le potentiel qu'il faut. Ce qu'on attend des étudiants, qui sont l'élite de la jeunesse, moi, li ñu woote depuis le début le patriotisme la citoyenneté le civisme li taxoon ñu lancé les vacances patriotiques di woo booy na leen ñëw leen ñu dem ci àll bi bay dafa am lu ñu leen bëggoon woon mooy le don de soi pour la patrie que chacun se pose tout le temps la fameuse question qu'est-ce que je peux faire pour mon pays avant de penser à ce que le pays pourrait faire pour vous. Nous attendons de vous que vous soyez l'élite de cette jeunesse qui va propulser le projet que nous avons en commun, qui est un projet non pas de conquête du pouvoir, mais un projet de transformation structurelle de notre société, de notre État, de notre démocratie, mais de notre modèle de développement également. Et donc pour cela, la ñuy xaar ci étudiants yi. mooy ñu accompagner ñu ci liggéey bi ñu war a def parce que xam ngeen soppi société yombul de am na ay jikko yoo xam ne am na fi ba noppi mu am ñoo xam ne peut-être mu ngi leen di arrangé soo xëyee ne da koy bëgg soppi il y aura forcément des résistances et des réticences ci foofu la ñu soxlawee des citoyens des gens qui pensent d'abord collectif avant de gérer leur intérêt personnel et vous pouvez être ces gens-là vous les étudiants parce que tolloogu leen fu ngeen yàqoo vous avez encore la possibilité de surfer sur les pas que nous avons essayé de tracer nous-mêmes je le dis des années avant vous on était ici dans cette université nous avons pu bénéficier de l'encadrement de personnes formidables je vous ai dit que le professeur Mary Teuw Niane qui a été recteur de cette université qui a été ministre est aujourd'hui avec nous pour nous accompagner dans ce travail-là Chacun d'entre vous, chacun d'entre vous doit considérer qu'il est lui-même un Ousmane Sonko en devenir. amul dara lu extraordinaire loo xam ne mi ngi ci Ousmane Sonko te nekkul ci yéen parce que tout de l'œuf bii laa doon footballé béy bii laa doon defee karaté sama chambre gi ni 7G 7A je ne suis pas je ne suis pas plus intelligent que vous je ne suis pas mieux que vous mais lii différencier nit ñi mooy li ngay def sa bopp détermination bi ngay am ci bëgg a baax ak góor góorgóorlu ci ak principe yoo xam ne di nga ko construire par toi-même bañ a topp la facilité bañ a tomber dans les pièges de la vie jàpp ni àdduna dañ koy lijjanti waaye duñ ko liggéey vous êtes tous des Ousmane Sonko en devenir vous êtes tous des Bassirou Diomaye fay en devenir gëm leen seen bopp xam ni ce pays là yéen yéen a koy defar du ñun ñun dañuy xàll rek mais yéen yéenay defar le pays et pour cela il faut que vous soyez avant tout des citoyens nous allons nous battre nous l'un des aspects les plus importants de notre programme ku fi ñëw di leen wax ni am na programme laaj leen ko leen rek un homme politique peut venir vous dire voilà ce que je ferai dans l'agriculture la pêche le les infrastructures mais poser leen ko benn question bu simple sëñ bi avec quoi tu vas financer cela ku la mënul wax nu muy financer mënul liggéey réew mi et donc nous aurons besoin de citoyens pour régler définitivement la question du financement de notre économie de notre développement ci lan on vous a tous annoncé que suñuy ressources naturelles yi nga xam ne jaay nañ ko tayle nañ ko nous allons renégocier nous allons récupérer ces ressources parce que ñoo ko gën a soxla ku ne mais loolu pour nga réussir ko tu besoin d'avoir le peuple en bloc derrière toi ñi ko def ñëpp seen peuple dañoo ànd ak ñoom et vous les étudiants vous devriez comprendre ces enjeux la mais vous devez aller dans vos quartiers parler à vos proches à vos parents vous devez être porte-étendards de ce combat qui est le combat le plus noble qu'on puisse parce que suñ ko deful dans les 30 ans à venir nous n'allons pas jouir de nos propres